Salam aleykoum wa rahmatullah mbokki buntu Omrah bu ànd ak visite Caire Égypte ubbeeku na ànd si ak Yassiru voyage bu imam Ahmed Diop diap le premier ba le 14 octobre 2022 3 jours de visite guidée manam di ngeen visiter le Nil le grand et ancien université de Al-Azhar ak les pyramides package Bangkok hôtel 5 étoiles restauration en demi pension manam ndékki ak reer encadrement bu mucc ayib lolu si njëg bu 2 millions 300 mille francs donc ñu y a yëgal ni am possibilité de réduction pour une ombre en famille date limite d'inscription n'est que le 19 septembre 2022 bu bépp xibaar mu ngeen 77 395 58 68 77 395 58 68 service bu mucc ayib mu ngi leen di xaar Voyage muy wéy di ànd ak yéen saa su ala lahu ala tawfiqihi واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه اما بعد مبكي جلدي نونجي سانت يالا سبحانه وتعالى من خامني مو بيند دوند مو بيند دي غير ناتو جامام ني كان مو تي غنا رافيت جيف di jullee ka ca sunu sang bu tedd ba sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi moom mi nga xam ne moo daan wax ni dee leen baril lu ngeen di fàttaliku dee mi nga xamante ne mooy mabb bànneex yi wala mooy dog bànneex yi mbokki jullit yi dee réalité la boo xam ne mbooleem xeet yépp mo xam julit mo xam kudul julit mo xam mag mo xam ndaw ñepp ko bokk gëm kenn wul ne bis dana ñew dé ñew mbokk yi kenn ci ñun ndax man na garanti ne suba ci waxtu wi dana ko fekk muy noy kenn mënu ko garanti kon nun ñepp ko gëm nit ñi nak dañuy rawante ti ni ñi gëmé dé ndax gëm dé di bari loo koy fàttaliku daanaka ab rawante nekkul foofu rawante bi mi ngi nekk ci préparé ko balaa ñëw ndax kët mbokki jullit yi dee buy ñëw day bettee comme ni ko borom bi tabaraka wa wax ci alquran ku sab dig jot nga nga dem te kenn xamul sab dig kañ la benn waay mi ngi koy misaal nee na ñun ñëpp dafa mel ne benn néeg boo xam ne dafa lëndëm musoo dugg am buum goo xamante ne dañ koo lem mu ne ci biir néeg bi ñu génnee cat li ci benn fenêtre bu ndaw ne la xëccal ngay xëcc di dem buum gi di la topp te buum gi xamoo nan la toll ca biir néeg ba mosoo faa dugg xamoo lu mu toll dangay xëcc ba mu yàgg rek buum gën a roset cat la ca mujjoon génn sëg dund noonu la mel ku ci ne ci ñun yaa ngi jàpp buum gi di xëcc bis bu ne buum gi di gën a génn la ca biir di gën a wàññiku te xamoo kañ lay jeex da ngay jekki-jekki rek mu ne roset mbokk yi dee day bette comme que dee day bette nag moo tax sunu bu yonent nenu na di bari lu ngeen di fàttaliku dee naka nga koy fàttalikoo mooy prépareel ko ci jëf lu baax wan gannaaw lu bon moo tax benn waay dafa ma sa ñëw ci yonent alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw bisu penc kañ lay taxaw yonent bi xam ne li mu laaj non seulement moom yonent xamu ko yàlla rek a ko xam waaye am na leneen lu mu waroon a laaj lu dul loolu yonent bi daal di koy poser question ca la mu waroon a laaj ne ko lan nga préparé pour su penc kon yow it jullit bi lan nga préparé ba bu dee ñëwee fekk la ca ba bu dee ñëwee mu doon wéttal wu lay wéttali sa bàmmeel ba bu dee ñëwee boo taxawee ci kanamu yàlla ëllëg yowmal qiyaama nga mën a amul lay nga mën a raw kon nanu préparé de noonu lañuy fàttalikoo de moo tax Uthman ibnu mi nga xam ne mooy ñetteelu xalifa yonente alayhi salaatu wassalaam buñ daan tudd dee wala mu daan ziyaare armeel day jooy barangooñ yi tooyal sikkimam bu rëy ba bu ko defee ñu ne ko yow de yi danañ tudd aljanna wala ñu tudd sawara doo joy waaye saa yu ñu tuddee dee wala nga ziyaare armeel yi rek nga jooy ba tàggoog sa sago mu ni leen damaa dégg yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam daan wax naan alqabru awalu manazili al axira mu ne bàmmeel mooy wàccuwaay bi njëkk ci al'axira yonent bee ko wax ci xadis boo xamante ne xadisun xasan nee na boobu bu ci doomu aadama muccee gannaaw ba mën naa mucc waaye nee na su fekkente ne xabru ba safaan am na fa nee na la ca gannaaw mooy gën a metti kon mbokk yi nanu préparé dee bala moo ñëw kenn ku ne ci ñun am na mbokk mu ko jege walla xaritam walla soppeem bu ko jege boo xam ne daan na ànd ak moom guddeeg bëccëg tey dem na bis ñëw ñu defar ko ba mu jekk ñu kornet ko dugal ko ci biir suuf suuf féete ko kaw féete ko suuf féete ko côté yépp moom dong mu wéet fa minha xalaqnaakum yàlla nee ci suuf soosu laa leen bind wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra danaa leen ci dugalaat bu ngeen dee ëllëg bu ngeen di dekki ci suuf soosu laa leen di génnee réglé leen ci seeni jëf mbokk yi borom bi tabaraka wa taala mi wéetoon ak yow ci sa biiru ndey di la jox ngay lekk kenn fekku ko ca di la jox ngay naan kenn fekku ko ca mu lay aar di la sàmm li biir di tàng tàng mu jox la température boo xam ne ci ngay nekkee à ci sa biiru yaay kenn fekku ca yàlla mu lay sàmm ba xëy suba nga génn nga génn sa biiru yaay gane si àdduna borom bi tabaraka wa taala moomu yor sa dund noyyi yi ngay noyyi doomu aadama yépp bu ñu àndoon bëgg la koo jox te yàlla xañ la ko keroog ngay wuy ji sa borom yàlla di la jox ngay noyyi ba nga nekk waxambaane ba nga nekk magum jëm loo bëgg def def boo bëggee dem dem boo bëggee dikk dikk yàlla wéet ci loolu yàlla moomu bu la nee bis dana ñëw ma rey la war nga koo gëm waaye bu na bu ma la reyee bu mbir mi jeex na de dama lay atte li nga doon def ci àdduna bu dee lu baax la ma fay la aljanna bu dee safaan la ma fay la sawara kon yàlla moomu war nañ koy bàyyi xel te yàlla moomu boo dee bañ dugal la sa biir bàmmeel na nga wéete woon ca sa biiru ndey noonu ngay wéete ci sa biir bàmmeel dara du la fa fekk lu dul sa jëf ji nga xam ne moom nga doon def yonent bi moo ñu ko nettali lii xew ci biir bàmmeel mbokki jullit yi kumpa la yonent nag moo ñu ko nettali nettali boo xamante ne dara du ko dindi doomu aadama yi nag ku ci nekk yaa ngi wutal sa bopp nooy nekk ci sa biir bàmmeel nit ñi di nettali nit ñi ay nettali yoo xam ne jële ko ci yàlla jële wuñ ko ci yonent alayhi salaatu wassalaam ñu créer ay situation yoo xam ne moom la wax ne moom la nit ki di dund biir bàmmeelam ñu naan ko booy dund da nga fa fekk lii diw sangam dana la gatanu buñ la booleek nangam bu boobaa loola mooy tax doo texe te yàlla waxu ko yonent bi waxu ko li taxoon ñuy motiver nit ñi ngir ñuy topp yàlla ñu banaliser ko ba nit ñi dootuñu faale mooy yàlla dañuy jàpp ne man ah raw naa jàpp ne buñ ma suulee béréb sàngam damay raw comme que béréb nit sàngam laa yaakaar damay raw loolu yàlla waxu ko yonent bi waxu ko biir makka gi nga xam ne moo gën ci béréb yi nekk ci àdduna rob nañ fa ay nit ña nga leen di lakk ba ba saa taxaw te bu ëllëgee yowmal qiyaama ñooy feesal sawara kon nit ki li koy fekk biir bàmmeelam yonentay wax de nee na ñaar yii la mooy jëf ju baax ak jëf ju bon bu dee lu baax nga doon def yonent nee na bu ñu la dugalee sa biir bàmmeel bu nit ñi di lay suul ba maasee yàlla di la delloo sa ruux ñaari malaaka ñëw di la laaj yoo xam ne dañuy ñuul kukk ba bula bu ñëwee duñ la laaj sa baay duñ la laaj sa ndey duñ la laaj sa sëriñ duñ la laaj foo dëkkoon duñ la laaj lakk woo doon lakk waaye dañ lay laaj kan mooy sa boroom noo defoon nag yàlla bu dee yaa ngi doon jaamu yàlla teg ko da tontu yàlla ñu ko yàlla defal danañ la laaj kenn ci nit ñi lañ lay laaj du ñaar danañ la laaj ne la am na benn waay bu ñu doon wax muhammad te mooy yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam noo defoon ak moom bu dee daan nga topp yonent bi di topp ndigalam di bàyyi ay tereem danga nga mën a tontu yonent nee na bu dee koo xam ne daawul def noonu nag danaan haa haa laa adri xaw ma malaaka yi ne ko laa darayta wala talayt yàlla boo ko xam daal di koy jàpp mbugal ma foofu lay tàmbalee mbokki jullit yi kon lii mooy xew ci biir bàmmeel boo bëggee mucc sa bàmmeel nekk jardin ci jardin aljanna yi malaaka yi ñëw laaj la nga mën a tontu boo tontoo ba pare ñu ndokkeel la am benn waay bu ñëw sol lu rafet yonantay nettali lii biir bàmmeel lay xewe te kenn ku ne ci ñun dana xew yow képp nga fee wéet ci sa biir bàmmeel yonante nee na benn waay moo la ay fekk boo xam ne day rafet lool bu dee waa ji da doon def lu baax benn waay bu rafet moo koy fekk biir bàmmeelam ginnaaw bi ko malaaka laajee ba noppi di xeeñ xet gu neex sol yére yu rafet daal di ñëw daal di ne ko maa ngi lay ndokkeel ndax yow ku xéroon nga ci def lu baax waaye danga daan wattaliku lu bon néew bi muy man di yow daal di wax ak waa ji ne ko ah yow de sa kanam gi mooy kanam gi indi aw yiw yow yaay kan yonent nee na waaja daal koy tontu daan ko man maay sa jëf ju baax ja doon def ca àdduna mbokk yi nañu xër ci def lu baax ngir ñu mën a mucc ci biir bàmmeel yonent nee na foofa lañ koy wubbile ay xéewal yuy bàyyi ko ca aljanna muy xéewlu ci biir armeelam di xéewlu ba bés bés ji di taxaw yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu waaye su fekkente ne ki doon def safaan la safaan rek lay gis ba ko malaaka yi laaj ak mbugal yañ koy mbugal gannaaw ga benn waay boo xamante ne day xasaw xet bu naqari lay xeeñ mel melokaan wu raglu ñëw ne ko waaw kay lii moo baax ci yow ndax yow ku xeroon nga ci def lu bon wan gannaaw lu baax mu ne ko yow de sa kanam gi moy kanam gi indi safane yow yaay kan mu ne ko man may sa jëf ju bon jang nga doon def ci aduna mbokk yi kon nanu rafetal balaa bis booba ndax boba day fekk jëf wess fofa bisu bisu fay la waaye du bisu reccu du bisu jëf kon mbokki julit yi dee gogu nañ koy faral di bari luñ koy fàttaliku di ko waajal ci lu bax waye mbokk yi de gi nga xamantene ne dee ben benn seddu ci ci xeet wi waye nak gi gëna graw ci wi moy faatug boroom xam-xam yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla xam-xam du ko fi jële xëy rek jële fi xam-xam déedéet waaye nee na day rey boroom xam-xam yi kenn par kenn nee na yonent nee na bu ñu demee ba nga xam ne nit ñi amatuñ ay boroomi xam-xam ñu réer rek a nekk ci seen kanam ñuy dellu ci ñoom ci diine bu ko defee lañ leen di wax ci diine yépp ay njaaxum la ndax xamuñu diine boroom xam-xam ya dem nañ bu ko defee ñu daal di réer réeral leen kon moo tax boroom xam-xam bu faatoo loolu ak maax-maax la ci diine ji musiba mu rëy la ci kaw xeet wi kon yal na yàlla yàggal fi boroom xam-xam yi ñuy tette nit ñi di leen teg ci yoonu njub ndax ñoom ñoo donn yonent yi ab yonent doodu jóge ci sunu boroom yàlla di ko yónni ci nit ñi jeex na ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam bu doon baax a fi tax a des kon yonent bi dana fi des waaye yonent boobu bis dafa ñëw yàlla jël ko mu dem yàlla nee na ko woon bis dana ñëw nga faatu ñoom ñii di la weddi itam bis dana ñëw ñu faatu bu ëllëgee nag ca kanamu yàlla ngeen di daje ku ci nekk nag la nga amee ameeloon sa morom ci àq nga jox ko ko kon mbokk yi nañu rafetal sunu diggante ak sunu boroom balaa dee ñëw waaye na nañuy rafetal sunu diggante ak sunuy moroom boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi moo tax seenu faatu musiba la ci xeet bu ñu nekkee ci buntu dee di ko fàttaliku kenn ku ne ci ñun ak responsabilité boo mën a am ak responsabilité yi ni mu wutee war na nañoo bàyyi xel suñu boroom ak responsabilité yi ñu am balaa dee ñëw ndax kenn ku ne da rendre contre sa borom ginnaaw bi dee ñëwee yow jàngalekat bi li dox sa diggante ki ngay jàngal ci àq joo ko ameel war ko koo jox yàlla dana la ko laaj préparer ko balaa dee ñëw yow docteur bi faj li dox sa diggante ak malaat yi ñëw ci yow ci dalal bu nga leen war a dalal psychologiquement laata nga leen di faj physiquement responsabilité la da nga rendre compte yàlla ndax li nga waatoon ne da nga ko def ci sa métier noonu nga ko defee am am na leneen loo ca rax loo xamante ne ak tooñ la ci malaat yi lay dikkal moo xam danga nga koo def ci sa coobarey bopp moo xam dañ la koo def loo da nga rendre compte yàlla kon rafetalal jox sa métier àqam balaa dee di ñëw yow ki nga xamante ne yow yaay attekat bi yonent bi de nee na attekat yi ñett lañ ñaar ñi ñépp sawara lañ jëm kenn ki dong moo ciy dem aljanna kon loolu attekat bu nekk da ko war a bàyyi xel te faw dana am ndax yonent a ko wax te lu mu wax dëgg la nee na koo xamante ne dafa xam dëgg atte dëgg yonent nee na attekat bii moom aljanna la jëm ñaareelu attekat bi mooy ki nga xamante ne xamul dëgg buy atte day atte nit ñi ci ak réer yonent nee na kii la jëm ndax day lor doomu aadama day tooñ nit ñi ci atte yi muy ci xam-xam bi yonent nee na ki nga xam ne daa xam dëgg xam na ni lii mooy dëgg waaye mu bàyyi ko fa moo xam lu ko waral moo xam intérêt adduna la wala poñetum adduna wala ragal lu mën a doon yonent nee na boo xamee dëgg ba pare atte leneen lu dul dëgg attekat bobu sawara la jëm yonent ko wax kon yow attekat bi sa responsabilité ak sa digënté ak sa borom dafa reuy kon fexel ba loy atté nang ko xam waye loy atté na doon deug ngir nga mëna mucc ndax injustice moy baña atté deug lolu musiba la ci am aw xet musiba la ci ñi nga xam ñom lañuy atté waye musiba la ci ñi nga xamantene ñoy atté ñii àtte musiba la buñ dajeeg yàlla ba war koo rendre compte tooñee tooñoon ñi ñu àtte ñépp ñu war koo fayeeku teg ko ci seen kaw teg ko ci kaw musiba la ci ñi àtte ndax stabilité ak dëkk justice bu jub moom moo ko yore kon bu fekkente ne injustice dafa am toujours xeet wi ci ak pëccëx wala ñuy nekk ci musiba la ñuy dund yow mi nga xamantene ya na ci sa borom ya na ci sa kër nga nek borom kër responsable nga ci sa digënté ak say soxna sa digënté ak say njaboot da nga rendre compte yalla bu dee ñëwee yow mi nga xamantene ya am responsabilité bu mu boy bo doon bayyi xel dee lu bari bari ay njaaxum do ca dugg mbokk yi kon de moy li nga xamantene doyna doy wa waye doyna waaye doy luy motiver nit ki ngir mu teggu ci yoonu njub digganteem ak boroomam mu tegu ci yoonu njub digganteem ak moroomam yi nga xam ne ñoom ay doomu aadama lañ comme moom kon yàlla ñu yàlla defal loolu ginnaaw bi ñu xamee ne kon dee dafay ñëw boroom xam-xam yi ñu ngi wàññeeku benn par benn yàlla na te jéggal leen jéggal mbooleem am na taxawaay boo xamante ne war nañ koo taxaw bi ci jëkk mooy war na noo gën a góorgóorlu ci xam yi boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi waaye yow ndongo bi yaay donnu boroom xam-xam yi kon nanu góorlu ci xam-xam ba benn boroom xam-xam bu fi jógee lu mat téeméeri ndongo ne ca ronam mission ba mu doon doxal ñu di ko doxal di woo nit ñi ci lu baax di leen woo ngir ñu wan gannaaw lu bon ñaareel bi mbokki jullit yi nanu góorgóorlu ci bàyyi càggante gi te préparé dee gi nga xamante ne saa yu ñëw day bette yàlla kat wax nañu ku ci ne booy dee ak nam lay fekke nettali na ñu baax ñi ni ñuy dee ci alquran ak seen mujj gu rafet nettali nañu ñu bon ñi ni ñuy dee ak seenu mujj gu ñaaw kon ku bëgg a am mujj gu rafet del def jëf ju rafet ndax xamoo kañ la dee di ñëw te nag li ngay def bu dee di ñëw ca la lay fekk kon na doon lu baax te lu baax loolu bu dee ci nga faatu bu ëllëgee ci ngay dekki ndax yonent bi nee na ku ne dañ lay dekkal ci ni nga deewee woon situation bi nga deewee woon noonu la la yàlla di dekkale bu la yàlla jëlee fekk yaa ngi doon julli ëllëg yow man xiyaama booy dekki noonu ngay dekki bu la yàlla jëlee fekk yaa ngi woon ci safaan ëllëg yow mal qiyaam ci safaan boobu ngay dekki waate kon liaison dafa am diggante dunduk àdduna ak dunduk àllaaxira kon nanu rafetal اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها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 Caire Égypte ubbeeku Andessi ànd Yassirou voyage pour imam Ahmed Diop le le premier le 14 octobre 2022 trois jours de visite guidée Madame di visiter le Nil le grand et ancien université de Al Azhar avec les pyramides package Bangkok hôtel 5 étoiles restauration en demi pension Madame Deki ak encadrement pour mucc Ayu si bu xéewale ci millions trois francs donc ñu leen di ni am na possibilité de réduction pour une umra en famille date limite d'inscription bi nekk le 19 septembre 2022 bépp xibaar mu ngeen woote ci 77 395 58 68 77 395 58 68 service bu mucc ayib mu ngi leen di xaar Yassirou Voyage muy wéy di ànd ak yéen saa su ne